jërë ngeen jëf mbokki bawal info point net mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yeneen sunu mbokku internautes yi ak yéen ñi nga xam ne yéen ñu suivre ci réseaux sociaux yi. tey nag li ñuy wax tey ji si àjjuma ji juróom benn fan ci weeru mars atum 2020 euh, ci poroxaan ak discours bi nga xamante ni Cheikh Bassirou Abdoul Khadre yëkkati na ko ci turu xalifa bi discours bi nag di tontuwaale ñi nga xam ne ñoo doon wax ne màgglu poroxaan dañu ko war a annuler. maanaam dañ ko waroon a reporter li ci Serigne Bassirou Abdou Khadre wax ñëpp dégg nañ ko ñëpp tamit rafetlu kàddu yi. Euh, ci biir loolu kii ngeen di gis ci photo bi nii mooy Cheikh Abdou Bara Dolly kii tey bokk na si ñi génnoon wax ne màgglu poroxaan dañu ko war a dàq. ba pare doon sàkku tamit xalifa bi réagir mu mel ni sorti boobu mu def naqari na taalibe yu baree baree baree bari ndax. ni ko sëriñ Bassirou Abdoul Khadr waxee rek taalibe bi moom li ko war mooy muy dégg ndigal bàyyi tere xam ne xalifa bi moo ñu gën a xam sunu biir ak sunu biti ni nga waree dem ci médecin bi jëbbal ko sa bopp di ko seetaan noonu moo war ab taalibe digganteem akub sëriñam ki ngeen di gis ci photo bi nii di sëriñ Aliou Sylla ñu gën koo xam ci Alla Sylla am ñu koy wax Baye àll mu nekk opérateur économique bu nu ràññee fii ci Touba moom tamit yëkkati woon na ay kàddu ba muy dégg ñuy wax ne màggal gi dañu ko war a reporter moom tamit yëkkati woon na ay kàddu ñaawlu ñi nga xam ne ñoo doon wax ne màggal gi dañu ko war a fomm ay kàddoom danañu ci ànd ak yéen. waaye li am ba des mooy Cheikh Abdou Bara Dolly mii ngeen di gis nekk député bokk ci parti bokk gis-gis bi sëriñ Bassirou Abdou Khadre defee discours bi ci Porokhane ba pare ci turu sëriñ bi di xam xamle ne sëriñ bi. moo ñu gën a xam li mu war a def fuuf te li mu war a def yoonu taalibe nekku si sëriñ bi la muy gis gisuñu ko lam xam xamuñu ko lam mën a saafara mënuñu ko saafara kàddu yooyu bi mu jibee ñi ko doon déglu ñépp mën nañoo wax ne dañu ko moomale Cheikh Abdou baara Dolly mii ngeen di gis ci photo bi kon ñu ànd ak kàddu yi nga xamante ni tey bàyyi euh, Baye si la yëkkati woon na ko si ñu tegalaa leen ay kàddoom ñuy wax ci nañ fomm nañ fomm nañ moom xëy na seenu taalibe manqué rek waaye sëñ bi moom li mu yéene li mu yéene réew mi ak li mu yéene taalibe yi wute naag di leen dugal ci lu nga xam ne du seen njariñ moom bu ko fomm ko waroon a wax rek yaakaar naa moo ñu koy jëkk xalaat ndax yaakaar naa am na lu muy fu muy xoolee foofu ñun suñ suñ suñu xool àggu fa ma ngay gis loolu ñun gisuñu ko kon nag sëñ bi daa def naa nga moom képp koo gis mu di ko def rek euh, la mu war a wax da koo waxul man sëñ bi laa yaakaar poroxaan barabum ñaanukaay la képp ku taxaw naa dañ ko war a fomm te nit ñi at mu jot dañ koy wax nit ñi dañ koo waaj ba jekk war a dem kon boo taxawee naa dañ koy fomm rek damay dee la war a nekk ci yow moo nekku ci yow sëñ bi moom mi ngi gis fi muy gisit moo nu gën a sori ab gis nekk ay taalibe daal la taxoon ñu bàyyi suñu kër kër yi waajur ñëw topp ci ñoom liñ fi doon gis ba topp ci ñoom dara soppikoogu ci boppam rek xam ni fii fee ko gën a jafe kon dañ leen yaakaar fii yaakaar leen fee rek nañ taalal suñuy loxo rek luñ ñu def loo rek ñun nañ fas yéene wéy ci loolu rek. waaw ginnaaw kàddu yi bàyyi àll si la yooyu nag moom tim da doon ñaawlu ñi nga xam ne ñoo doon wax màggal gi dañ ko war a reporté. Euh, ci biir loolu tamit sëriñ Bassirou Abdou Khadre wax lu méngoo ak loolu. ñu daal di teewlu kàddu yi sëriñ Bassirou Abdou Khadre. moo tax lii xew fan yii nag ci ay bis gi mooy mbirum jàngoro danaa ci si dellusiwaat sax ci li ma ci wax waaye ñu bari woo nañ ma daa mujj sax ki war sama téléphone bi ma ne ko bu moo ko àggeete ndax sëriñ bi la mu ca war a xam xam na ko ca waaye diggal sëriñ bi rek ne ko defal nangam ab taalibe du ko def ndax nit la sëriñ Mbàkke bu sooxoon rek ñoo ko seetoon ba mu doy ñu suñ digal suñ borom ñu doy loo ko ci kon lu mu ñu war a wax dañ ko war a gëm sëriñ bi nag la mu war a xam xam na ko. na muy saafara nag nañ toxal màggal yeeg nañ indi leen xew-xew yi loolu du suñub cër man de du ko def te ko yaakaar Sëriñ Tuubaa te muy dëgg ceew itam sëriñ bi bu doxoon ba xam ne lu ñu war a def la du ci diglu kenn ndax xam ngeen ne sëriñ bi amul lu muy ragal amul lu muy xalaat moom bu waree jël responsabilité da koy jël ñëpp dégg ko kon fommuloo sëriñ bi ak màggal sëriñ bi moo ñu gën a xam suñ bopp moo ñu gën a xam lay xew ëllëg moo ñu ëpp ci diggam ak boromam wàllu àdduna gi itam lim ci xam xawuñ ko kon boo xoolee ba xam ne lii la jamono ji laaj ca diggam ak Serigne xam na lam ca war a def loolu du ci diglu kenn kon loolu na ci ñëpp génn te bàyyi di wax sëriñ bi na digle ñu foofu màggali Serigne bi loolu lu bu dee lu mu war a def loolu moo koy xam du man maa koy digal te ku fi nekkal Serigne kat am na kilifa gu mu waxoon gu mag ci njabootu Serigne Touba baax ne lu mu njëkk xalaat te kenn wax ko ko ci Serigne Touba la kon nag loolu laa amoon ci wet googu lu ma ci wax. kon mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak euh, bawal info point net di sant bu baax a baax xalif général des it di ko ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi tamee ko ak wér di ñaanal Cheikh Bassirou Abdou Khadre yàlla suñu borom sàmm ko ak mboolem ñi nga xam ne saa su nekk ñoo ngi ci bawal info point net li am solo mooy ab taalibe da ngay fexe ba dégg ndigal di bàyyi tere waaye. wax wax joo xamante ni njombe lay doon ba ñëpp di la ngawte ngawtee kenn ku nekk war na koo dawal sa bopp.